Le Sénégal a été toujours considéré comme un îlot de paix, une démocratie exemplaire au niveau de la sous-région. Mm-hmm. Jusqu'ici, je dis que c'est le seul pays qui, jusqu'ici, euh, n'a pas vécu de coup d'État militaire dans la sous-région ouest africaine. kon loolu du lu ndaw. Mm-hmm. non seulement sénégalais di ko damo mais Afrique yëpp di ko damoo. mais àdduna bi bëgg jàmm yëpp di ko dambu mhm. kon loolu dañuy ñaan yàlla préserver ko lépp lu ci laxasu ci seytaane ak lu mënti doon yàlla na ko yàlla faxas lépp dellu si si jàmm ndax loo gis rek toog waxtaan lay mujj yàlla jox auteur kilifa yi ŋànk dëkk bi mhm. ñu ubbi seen xol yaatal boole njaboot gi yépp te toog waxtaan ak njaboot gi ñun nag comme jàngalekat lañ ci daara yu mag yi d'abord ñun man je un pur produit de l'UCAD fa laa jàngee sociologie de la première année en 94 de la première année en 2000 kon ñun li ñu xam foofu lañ ko xamee soo ko def spécialisation troisième cycle donc biñ ko gisee doy na waar parce on est un produit d'abord de l'UCAD nekk sénégalaise mais suñu gagne-pain dans les universités la mhm. te souvent sociologiquement parlant dañuy wax ni dans le milieu étudiantin euh, effet de contamination dafa gaaw bu ñu gisee ñu yàq benn université ñeneen ñi d'ailleurs bi Dakar defee noonu lañu commencé gis effet dañuy réagir absolument oui. heureusement ñu gis vision bi euh, les autorités euh, euh, du Mesri am ñu gaawantu tëj yeneen université ndax nag boo bëggee atteindre un peuple mhm. jarul sax ngay dóor balu fital léegi duggal ci savoir kon institution universitaire yi c'est des symboles loolu bu ñu ko laalee laal nañu l'âme du Sénégal à travers toutes ses couches ndax tey mbaykat yi nekk dans le milieu rural am nañu ay doom yu nekk étudiant yaakaar ci tey bëri na autorités yu nekk fii di def di dindi di nas di nocci ci dëkk bi mais foofu lañ jógee. effectivement kon milieu bi yëpp la laal. Mhm. baykat toutes les catégories socio-professionnelles baykat yi càmmkat yi n'est-ce pas. ñëpp jàngalekat yi cadres yi ñëpp la laal kon nag nañ ñaan ëmb bi rëcc.